Ah, alhamdulilah bien réveillé dans la Samsam nopp dalooti na rëy moo am mbokk bu ngeen taaxirloo ma faram fàccale li jot fa si xibaaru digg bëccëg baa yëg ngeen kaaw malade bi malade ba doon liggéey ca télé ba te sant Gueye daan def émission ba ñuy woowee automate malade ba de guddi yi la muy souffrir ci feebaram koo ko natt rek weesu na ko malade ba daal dem na ba am problème waaye dem na ba génn appartement mujjee ci benn néeg moom baa ngi gën a sonn ak feebaram yow mi defoon kañot bi nag ñoo ngi lay ñaan ci njekk nga yóbbu xaalis bi ndax malade bi mën a faju bi lu mu leer ci sutura mu leer xaalis bi pendant cinq mois ñu lay la ko woon aar boo xam ne ku ci dem Finlande rek créé xuloo yéen a yay nag ndax Finlande daa mit problème astufaal bi ragal naa mu mujjee

titulaire sa raq la te yàgg ngeen daje ci ay match muy neex te titulaire aussi ku la respecté la vraiment nag ancien feccikat ci vidéo bi vraiment nag la woote moom daal jënd na kolam woote diina loog làmmeñam non cas bi foog ma tegal leen ko ci fin vidéo bi ndax ngeen comprendre waykat bu mag bi génn dina de moom daal léegi fin de année ba fin de année lay génn en génn na te wax na wax ju rafet yow daal naanaan ku li fajjlin nga ak lu mënti xew anniversaire démb en tout anniversaire en tout cas longue vie longue santé bonheur prospérité si porteelu xale ba daal démb amul lu ñu waxul nee ko daal li nga def noonu la xale de def fu xale te ngi jamb ci sinab bi bi naa ñu sarax juróom benn dabu laax ndax mu jur jàmm papaanaa kalson am turandoo ngeen na ko amoo turandoo xam nga nag koy tooñ waa kan moo tooñ séeréer ba nekk ca kaw en tout na laay fa wax ay groupe xëy na day doog a découvrir degré soxor foo mënti toll yaa ngi ndamoo sa réew yow foo mënti nekk yaa ngi fier ci sa réew réew mi li muy metti metti fexe nga ba am say diplôme yoonu ndaw li muy yéex yéex fexe nga ba marqué sa empreinte donc nañu bàyyi jàmbur dafa am ay mbokk encore coowal nag li nekk ci réew mi lépp mënu ma ko régler sama yaay ba ma yóbbee atelier tailleur euh, njaga jum sama yaay nee na sama yaay nee daa mer naan topp aar bi rek chaque jour répétition chaque jour répétition mënu ma cee dëkk tey moom di nga dem jàngi ji métier ñu xëy 10 heures sama yaay yóbbu ma place su njaga ba pare sama yaay bu doon bu doon place su tailleur yu bees yi xale ñaw yu baax yi li ma yóbbu garaawul de waaye pas enceinte bi nga xam ni valant yi mu doon ñaw valant yi day mel ni bopp oto mbalit ki nga xam ne bu la ñawaloon tay baas mel ni ku la ñawal mbàq fas pas boobu nga xam ne moo ñawaloon moo moo ñas couture ñoo daan concurrence ante seen jamono sama yaay yóbbu ma fa naan njaga jum xale sama doom jaa ngi nii ay xam laa la laaj na jàng métier ndaysan ma fekk njaga jum nak ak ay apprentem ma nga fa fekk ñent apprenté ki di passé ki ñett ñi di ñaw keneen ki di perle sama yaana ko ja ya xam la laaj ma mukk tok sama yaana ya xam la la laaj na góorgóorlu na liggéey comme mi ci vacances na góor na tok njaga jum nak ak ak jum ak bañi reuy melni semi ñu na sama sama sama jarbaat la kay sama jarbaat la moom kay dina jàng métier ne fiis goos waaw fii moom liggéey bi nii la njaga jum bàyyi ba sama yaay dem <laughs> xanaa xam ne njaga jum moom a dàqalu njaga jum moom a njëkk a dawloo nan la nit ki di jàng seen métier premier jour nga yónni ko premier jour sama yaay daa dem rek mu jox ma cent franc ne ma dama jënd ma fermeture grand boubou ma wër mestre ba ma dem ñu ne ma amul ma ñibbisi ma ñëw ci atelier bi mu ne ma amul ma ne ko non amul mu ne en ah, garaawul léegi comme 13 jot na léegi mën nga wàcc caabi ji dama la koy jox yow na ngoon na nga teel pas gontu si nag parce que man damay naan ataaya doo ko gontu yow 15 h na la fi fekk nga tijji bo tijjee nga bale bo balé ba paré nga tok xaar ñu ñogi ñew ñëw amul benn problème ndaga jum ci <laughs> ndaga jum ci am fitam ak ci dal xelam mu jox ma caabi dina ma ngoon na nga gontu ci nga bale atelier ma ko am benn problème ndaga jum jox ma caabi ji man dal ma ñibi ba suñu kër bay waaj dugg suñu kër gis benn bitu gu jàll ba ma def denkané fa caabi ma ne ko jàll téyel ma caabi jooju ku ñëw jël si ko rek moo ko moom man daal maa baay ba añ ba pare tàggu sama yaay gont ma génn dem répétition maa dem répétition ba vingt heures vingt et une heures ma génn man daal maa ngi ñibbisi dajeeg sama yaay njaga jum sama yaay yor poto tamaate naan ku for xale bu réer njaga nekk ci ginnaaw naan ko mais lépp yaa ma ko yóbbee maa ngi nii gontu ma sama place tëj nañ ko caabi bi réer na ne <laughs> Eh, yàlla naa gudd fan sama gudd fan am na njariñ dina dàq stress yu bari barke njago jum am fit njago jum ba pare njago jum du ñaw ñaw événement moom hôtesse lay ñaw hôtesse xale yi sax jo xale yi gën a xam ne njaga mënul hôtesse lañ koy jox lu mënta ñàkk événement sax du am ñawu tabaski ñawu tabas déedéet occasion ñaw ñawu hôtesse hôtesse mënoo mënoo sama yaa naan daf ma ba ma jàng tëyër place ba jour jour ndax seen place benn jour laa xëy benn jour laa bàyyi marché Thiaroye tamit pàq ñaami noonu la premier jour damaa dem marché ba neex ma jaay 400 deuxième jour ma dem marché ba naqari jaayu ma dara ma bàyyi marché ba